Ngabou Média bu leen fàtte abonné wu bés close de notification bi ngir dara bañ leen raw ci suñuy xibaar internetu Ngabou Media dal leen ak jàmm gannaaw buñ leen nuyoowaatee ziar leen xibaar yi nag dañ koy doxe ak nag wax ci lu soxal baccalauréatum 2024 ak résultat yi nga xam ne tàmbali nañoo wàdd ni ki démb ba léegi mu mel ni nag fi nga xam ne moom mooy ca lycée bu Medina Wandifa foofee nag ab ndongo atam tollu ci fukk ak juróom-ñaar di ci turu Yaya Si bokk ak ci ndongo yi gën ndaw ñi nga xam ne nag am nañu baccalauréat baccalauréat atum 2024 euh, gi moom mi le nag euh, mu nekkoon ci série S2 mu juddu ni ki euh, fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2007 fi nga xam ne nag moom mooy ca Medina Bokar Sy bokk ci commune bu Faoun foofee nag la daal di juddo moom nag Yaya Sy nekk nag xale bi nga xam ne moo gën a ndaw ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am baccalauréat atum ren ji ci série s mu daal di ko am nag boole kook très bien mu nekk nag loo xam ne askan gi euh, féete fa nga xam ne moom mooy euh, ca médina Medina Wandifa mbégte lañ ci am bu baax a baax ba na rek euh, ko ci gis rek moom lay waxtaanee moom Yaya Si nekk nag ab tout tànk bu ndaw nag nga xam ne nag mu ngi juddu ci atum 2007 daal di décroché baccalauréat am atum ren ji Ngabou Média bu leen fàtte abonné wu bés cloche de notification bi ngir dara bañ leen raw ci suñuy xibaar